asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki talibe yi ñu ngi fii ci ma Maxama Ibrahima muy jumaa ji nga xam ne moom la ñuy ubbi tey ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi gën a yàgg te gën a wér waaye nag ci kilifteefu sëñ Dame Atta mi nga xam ne moom moo fi toog jotaayu sëñ Ibrahima Mbacké di leer ci Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ñu ngi fii nag ak sëtub sëñ Ibrahima di njaboot ci kër gi di ko ñëpp xam di sëñ Yeddaali Mbacké ñu bàyyi ko mu nuyoo bu ko defee ñu soo sóoboog moom ci li nga xam ne moom mooy illay jotaay bi tey waral mbokki taalibe yi fu ne bàyyi ko fa ñu buur wutal si barab bu tedd bi salaamaaleykum sëñ daal ñu ngi lay nuyu di la siyaare waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Ibrahima ñoo ngi yeesal am nuyoo ak akub siyaar ci Cheikh Mouhamadul taxaa di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi te may ko wér niki noonu la ñuy siyaaree sëñ Daam Abdourahmane mi nga xam ne mooy kilifa bërëb gi di ko ñaanal moom tamit suñ borom dolli koo wéral te may ko kàttan ba lim am yéene liggéeyal ko sañ Touba lépp ci yoonu lislaam mu mottalee ko ci ni mu ko bëggee jërëjëfati daal nuyoo bi am na solo xam naa dañuy rapidement plongé ci li nga xam ne rek mooy cëslaayu li waral ñu taxaw fi tey mooy ubbiteg juma masjid mu am taarix lool ci lislaam waaye kii ñu koy defal sëñ Ibrahima Mbacke di doom ci Cheikhul Khadim waaye sëñ Dame Atta mi ko fi toogal booy retracé un peu historique gu juma ji tàmbale ko ci jàmbaar jooju ba wàcc sañ Dame Atta yan kàddu nga ñu mën a indi xanaa di di santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi di delloo njukkal Cheikh Ahmadul Khadim di wax ne sëñ Ibrahima Mbacke mi nga xam ne mooy waajuru sëñ Daam Atta mi nga xam ne moo liggéey liggéey bu am solo bii te rafet lépp mu def ko ngir liggéeyale ko suñ sëñ Touba ci yoonu lislaam muy def génne ay propre moyen tabax jumaa joo xam ne bi mu koy tàmbali dafa wax ne tàmbali bi woowu ci kenn waaye bu koy ubbi am na yéene woo ñëpp ñu ñëw fekke si ko ci woo ñëpp ñu kaw fekke si ko nag moo tax sëñ bi ci 2022 biñ tollee ci la 24 avril lu ko jiitu ñetti fan ci ginnaaw ci la jot ndigal ci Cheikh Mouhamadul Mountakha wax ko ne ko bërëb bi kat suñ borom dafa def mu nekk ci ay loxoom mu amoon yéene taxawal fi suñ borom jumaa joo xam ne da koo bëgg a liggéeyale sañ Touba ngir jullit ñi nga xam ne ñoo jege fii man fee ñëw di fi jaamu yàlla di fi def seeni farata. kon sëñ bi jox ko ndigal ñu teg xeer wi mu yabal sëñ Fallum sëñ Abdou Khadir mu ñëw teg si xeer wi ñu tàmbali ko jumaa ji yàlla dimbali ñu sëñ bi boole ñu ci ñi nga xam ne ñoom la tànnoon ñu ciy liggéey ci début bi ba fii ñu toll tey ngir war koo ubbi ci waxtu yu néew ñoo ci nekkoon suñ borom dimbalee ñu ñu ànd kook sëñ bi ba lépp rafet euh, sëñ bi wax ne tamit mu ngi ciy sant yàlla bu baax di ci santle suñu suñ borom sëñ Touba ndax xam na ni ñoom liñ leen fi indee te bàyyee leen ko fi mooy jaamu yàlla. jaamu yàlla googu nag ku ñëw ci leen lay leen di fekk ku dem tamit ci la leen di bàyyi seeni ñooñu ci leen leen di tàggat moo tax mu ñëw ci barab bi nga xam ne fu xaw a enclavé la ndax quartier bi mu ngi tudd Maqaama Ibrahima fii nga xam ne moo ko ëmb it mooy Touba Fall jànnatu ñu gën koo miin ci Baye ga mu ñëw def fi bërëb bi ngir bëgg nag maanaam jaami yàlla yi nga xam ne ñoo jege fii ñëw di fi joxe seeni farata boo xoolee jumaa ji ku xool tolluwaay bi ak taxawaay bi da nga xam ne yittee ngi ci taxawaay ngi ci moyen tamit def nañ ko ci moyen yi nag leen génnu ci sëñ moom moo xool ni nga xam ne noonu la ko suñ borom wërsëgale mu tàmbali ko ci xaaru ci kenn jumaa ji it biñ ko tàmbalee ba fii ñu egg si tey amu ci bis boo xam ne dañoo xëy ne maanaam ciment moo manqué wala fer wala dara ba ci maanaam finition yi yëpp bu ñu xëyee li ñu war a liggéeyee mi ngi taxaw loolu daal la sëñ bi defal suñu borom suñu borom dimbale ko it nag ba tey sëñ Mouhamadul Muntaxa joxaat ko ndigalul ngir ñu war fee tàmbalee joxe faratay borom bi tey jii ci ajjuma ji mu tolloog 18 octobre sëñ bi di ci santale suñu borom yàlla di ci santale mbokk taalibe yëpp di ñaan tamit tuyaaba joo xam ne am na ko fi mu bokk ko mbooleem kuy ab jullit mbooleem ak kuy am murit mbooleem koo xam ne lislaam moo la tax a jóg suñu borom dimbalee la ba li ngay sàkku nga am ko ni nga ko amee fas ci it ñaanal seex Muhammadul Muntaxa suñ borom dolli ko wér ak kàttan lum ci am ci tuyaaba daal yàlla na ko bokk ak mbooleem jullit ñi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi mbooleem jullit bu am jafe-jafe ci darajey tey jii nga xam ne ci lañ fas yéenee taxawe barab bi yàlla na ko suñ borom teggi defal leen tawféex saahir ak baatin waaw loolu daal mooy mooy mooy solo si dëgg-dëgg. ñaari laaj lañ ciy tëj waaye bi nga koy jiitalee moom mooy ku wax wàllu tabax wala liggéey bu toll ni wax ndax sañes na ko tudd liñ ci def ak njabaru sëñ ma ñan lañ ko àndal ndonte sëñ bi woote wu ko sax. waaw waaw waaw jumaa ji de budget bi xam naa damay bañ a wax loo xam ne wóoruma ndax lu mel nii ku ko def xam nga ni boo tegee sa bët rek da nga xam ne am na lu fi dem ci budget waaye comme dañoo nekk ci liggéey boo xam ne bëgg nañ buñ paree ñëpp jot ci moo tax ñuy bañ a préciser waaw maanaam waaye ku xool jëmmi bërëb bi ak taar bi ak li nga xam ne moo nekk ci ci ci jumaa ji ndax boo xoolee am na partie boo xam ne étage jumaa ji tolluwaay bi rek guddaay bi boo xoolee dem na ci trente deux yaatuwaay bi mi ngi dem ci vingt cinq bokkul nag ak coupole bi nga xam ne dix mètres la jël nga xam ne daanaka boo xaajee jumaa ji da koy mën a jël benn paat ba ci làmp bi nga xam ne dañ koo commandé ba Turquie ngir mu gën a jëmmal jumaa ji ndax coupole bi ni mu toll boo koy defal da nga ko defal loo xam ne ku ko gis danga nga ko gis moo tax nag nga xam ne kon li fi dem bari na waaye ngir bañ a juum daal wala ñu wax loo xam ne day safaanoog li am ñoo ngi ñu bàyyeendi loolu ba jëmm jamono xëy na bu ñu demee ba coup bi yëpp fees danañ woowaat mbokki taalibe yi fii leerale leen ko noonu sëñ bi nag moom woowu ci kenn xaaru ci kenn xëy na nag am na ñoo xam ne ñëw nañ yëg liggéey bi wala ñu romb ko sax gis ko yëkkati seenu ñàq def ko ñooñu it sëñ baa ngi leen di sant ci seen taxawaay di leen gërëm di leen ñaanali loolu ñu def ngir suñ borom suñ borom dool leen cee defal ndimbal ak tawfeex waaw. laaj bi ñu koy tëjee mooy ndax njaboot sëñ Ibrahima naalaat nañ yeneen naal yu fas yéene liggéeyale yu mel ne yii wala yu ko gën a féete kaw bërëb bi boo xoolee war naa am war naa am jàngukaay am na fi waaye war naa gën a moderne boo xoolee kaas centre de santé war na fee am leneen ak leneen war na fee am sëñ bi it am na yeneen i pénc ci biir dëkk bi yoo xam ne nii mu ko defee fii noonu la fa séenee te xawale ko fa suñ borom waaw loolu daal mooy naal bi ndax liggéeyal sëñ tubaa moom du jeex du xaaj da ciy nekk rek loo paase tey bu subaa nga sumbaat leneen ndax fii ñuy wax ak yéen rek am na lu sëñ bi sumb loo xam ne buñ ko xoolee tey la ca war a dem ëpp na lii waa ndax ñoom seen ñun ñun ñooy noppalu waaye ñoom duñ noppalu ci lu baax waaw. yan kàddu ngay tëjee sëñ daal yi rawatina sax bitim réew yi nga xam ne am na ci ñoo xam ne bi ñu koy tàmbale ñi ngi fi woon te bi mu yegg tey mi ngi leen fekk bitim réew yan kàddu ngay tëjee euh, laafaale ci ñooñu ngir cant ak ngërëm ak ñaanal leen te ñu bokk ci ñun ñëpp waaw ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mbooleem taalibe bu fi ñëw te am taxawaay ak ñi nga xam ne ñoo ci nekkoon ak ñun ba fii sëñ baa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne moom jëfalu leen suñ borom mi ngeen doon jëfal ak sëñ Touba moom am na fay te dana leen fayal boppam